leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan mbokku téléspectateur Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte ak bànneex nag di jàkkaarlu ak yéen saa su nekk rek nee leen nii lay demee ma ciy ànd ak Babacar euh, Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay am. ci loo nekk. sant borom bi looy nuyoo. waaye sant yàlla rek bi sallallahu alayhi wasallam nuyu ñëpp ñi nga xam ne di bég si ñoom di leen ñaanal jàmm su nekk rek. amiin voilà mbokku téléspectateur yi ñu dem seetaan yi nga xam ne moo di revue des titres daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi février 2021 dañu ñëw kin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooree ko yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey école de Balla Gaye bi mu xëyoon démb fa la xëyati tey ka waxoon démb nag mooy Moussa Ndour di doomi Balla Gaye numéro waaye tey nag ka nga xam ne nii nag moo ko tontu moom moo di président école ba di ka nga xam ne moom moo di Moussa Ndiaye Moussa nag moom la mu xëy di xam ne daal nee na leer nañ école ba tey génnewee su leen fa tey suba waxi noppi ca école seize booba ñu nekk daal jàpp na ne kenn génnewu leen fa loo ci mën di dëgg daal Moussa Ndiaye tey wax na lu mel ne ki noonu li mu xam ne daal nee na li am ba des daal ñoom pare nañu ngir école ba moom nii lu koy jagal la ak lu koy defar ñu taxaw ca ba école ba na nga xam ne nii noonu la war a mel mu mel ni loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di Moussa Ndiaye ñëw na ci ka nga xam ne nii moom moo di les deux wala Balla Gaye numéro deux nee na ñoom ñaar pourquoi pas ëllëg ñu nekk ay futur directeur technique la nga xam ne nii moom mooy école de lutte Balla loolu mooy wax ki nga xam ne moom moo di Moussa Ndiaye jàpp na tamit balaa ñoo commencé la nga xam ne nii moom moo di daal wàllum defante wala boobu balaa ñoo commencé lu jëm ci wàllum la nga xam ne nii moom moo di liggéey ba lépp loo xam ne war nañ ko faa def ci wàllum réflexion daal des na ko fa def moo xam porte yàlla yu mel ni ki noonu lool Moussa Ndiaye tey moo xëy tey di ko wax yemu ca mbërëm ma di Balla Gaye 2 tamit xam ne ne daal fi mu nekk ni moom pare na ngir defante ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier loolu mooy ki nga xam ne nii moom di Moussa Ndiaye ma nga xam ne moom moo jiite la nga xam ne nii moom moo di école de lutte Balla Gaye yëglekaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dalal ko mu seq moom waxtaan wu yaatu keneen koo xam ne xëy na tey di wax moom moo di Biram Ñing Biram daal seen combat bu war a dox seen diggante ak Ama Baldé la mu xëy xam ne daal ne ñoom kenn la ñuy déglu muy ki nga xam ne nii moom moo di Luc Nicolaï loolu la xëy tey di ko wax moom mi nga xam ne moom moo di Biram Ñing keneen koo xam ne xëy na di wax muy Ambroise Sarr entraîneur national bi nga xam ne nii moom moo yore équipe nationale bi Ambroise nag la mu xëy xamle lenn la ne ki nga xam ne moo di Sa Thiès Reug Reug Boy Niang ak ñoom ñii daal jàpp na ne boo sàgganee MMA mondial bi maanaam MMA wu àddina bi daal mën nañ koo dominer ndax gis na ci ñoom loo xam ne nii daal lu doy doy la itam loo xam ne nii daal jàpp na ne ñaari ay xal lañ yoo xam ne daal ku yebu bàyyi leen xel keneen koo xam ne nii moom la muy def mu nga ca yëglikaay bi xëy na tey dalal ko muy ki nga xam ne nii moom moo di Boy Guet Ndar Boy Guet Ndar nag moom la mu nar daal lenn la ginnaaw promoteur ga ba mu ca jógee daal le wala boog ginnaaw ba mu nekkee mbër ba jóge ca daal fi mu nekk nii daal ay ambition daal mooy nekk promoteur bu mag a mag a mag ci li nga xam ne nii moom moo di làmb ji keneen koo xam ne moom la mu nar mu nga ca muy Ama Balde ma nga xam ne nag maanaam la mu taxawal daal mooy xeex li nga xam ne nii moom moo di corona bi ba tax na fa nga xam ne moo doon ca démb daal la nga xam ne moo di ay zel Sénégal ak lu jëm ci ay masque ak yu mel ni ki daal doon na ko fa joxe ngir nag xeex ak la nga xam ne ni moom moo di corona bi maanaam daal nit ñi di raxasu ba set loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw tey wax nu ko moom sunu làmb leneen loo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ci muy qualifié numéro 2 bi nga xam ne yëglikaay bi daa jàpp ne daal maanaam ngir mu jóg dem ca kaw mbir yooyu fi mu nekk nii moo ko jaaxal nu muy def ba naaw dem ca kaw yéex na ci moom lool sunu làmb ñëw na ci moom ak la nga xam ne foofu la toll ci carrière boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi nee na maanaam mu ngi ci huit victoire ak la nga xam ne ni moom moo di trois defet sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu ci xale boobu nga xam ne ni moom moo di qualifié numéro deux nekk fa nga xam ne ni moom moo di ca caaro yi sunu làmb tamit xëy na tey dinu wax loo xam ne ni daal xibaar bu naqaree naqare la muy ka nga xam ne moo di Arafat mi ngeen xam mu daan topp rëg-rëg bëgg ko lool te itam saa bu ñu ci li simple bi moom day yëngu di yëngal ba ba muy jeex yëglikaay bi nag xamal nañu ne daal démb daal la wuyu ji boromam daal di génn àddina moom Arafat yëglekaay bi di sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee danuy dem fa nga xam ne moo di ci record record moom la mu xëy dina ko xamal lenn la maanaam ki nga xam ne moo di Ama Baldé ak matériel ya nga xam ne génne na ko mu jëm ci wàllu ay gel yu mel ni ki noonu ngir nag fas ko yéenee jàppale ña nga xam ne nii ñoo di askan wi ci xeexum corona bi waaye yëglekaay bi moom record xamal nañu daal Ama dem la mu def presse ba daal nax la leen def maanaam gaa ya toog di ko xaar Ama gisuñu ko fa ak ay bët maanaam daal jaaru fa waaye loo ci mën a dégg daal gestam moom def na ko yëglikaay baa xëy wax nu ko moom record ka nga xam ne moo di pareem nag di Aly Ngouille Ndiaye moom jàppale na ko lu toll ci boo bëggee dégg-dégg ñaari million yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ba tey record xëy na seq moom wax muy booy get ndar ma nga xam ne nii moom itam mu ngay wax daal la tax maanaam mu jël Aziz Ndiaye def ko royukaayam ci wàllum lamb wala wàllum promoteur jàpp na ne daal ka nga xam ne moo di Aziz Ndiaye mooy référence am moom booy get ndar moo xëy ñëw dinu wax loolu fa nga xam ne moom moo di ca record ba tey bu nu continuer ci journal bi nga xam ne moo di record ka nga xam ne nii nag moom moo di Fallou Ndiaye soo bëggee dégg-dëgg daal ñu ngi ñu xam ne daal maanaam un million deux cent cinquante mille daal la fas yéenee teg fa nga xam ne moo di ca Gambie yëglikaay bee xëy ñëw wax nu ko loolu nag mu ngi war a am le vingt-sept jàpp le 28 février bi nga xam ne nii ca la ñu nekk yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ñu wax lu mel ne ki noonu moom record booy get ndar tamit daal mu ngay xam ne la tax mu jël ka nga xam ne moo di Balla Gaye numéro de def ko muy mbërëm waaye baabooy daal la jàpp ne tamit moom moo di référence am ci la nga xam ne nii moom moo di làmb ji yëglikaay baa xëy ñëw tey di wax lu mel ne ki noonu moom record. voilà mu nekkoon revue des ñu daal di dikk ak yéen nag ci journal suñu làmb Babacar kii di Moussa Ndiaye xëyee ñu. li mu xam ne rek moo di moom euh, li nga xam ne problème yi amoon fële ca école de lutte Balla Gaye 2 maanaam yàqu-yàqu ya moom daal xam na ne fi mu nekk nii pare pour jóge foofu te yenn yenn cee xam ne sax nag euh, amul. waa comme démb parce que wax boobu boo ko bu ñu ci diggaate rek mooy démb lu seen Ndour waxoon di xalaat que ni dinañ leen fa génne yu mel ni gi noonu. Mm. te jàpp na ne loola mënta ne parce que lañ koy xalaat ak li am c'est pas la même chose Moussa nag moom mooy président école Balla Gaye ah, defe naa moom su waxee tamit defe naa kàddoom valable na parce que defe naa école Balla Gaye moom mooy ki ko jiite kon defe naa itam lu mënta xew daal mooy foofa moom euh, seen kër la goo xam ne daal jàppul ne dinañ leen fa génn daal mhm. waaw voilà bu ñu jógee foofu rek ñu daal di dem seet ki nga xam ne moo di Biram Euh, sifflet kii Luc Nicolaï la ñuy déglu fi mu nekk nii. waaw ah waaw parce que Luc ko rek moo tëgg combat moo joxe avance am. Mhm. kon defe naa fi mu nekk nii moom ñoom ñëpp moom la ñu war a toog di ko déglu ba xam moom fu muy jëm ak combat bi ak muy doxalee ak ñoom mhm. euh, ah ñu yónni yàgg rek ba xam waaw. kon euh, baax na Babacar bu ñu hmm. jógee foofu ñu dem ci nga xam ne moo di Ambroise Sarr di entraîneur national mu daal di jikk ak ñun ci euh, Reug Reug na xam le ne na il est mystiquement très solide maanaam Reug Reug dafa taxaw ci côté mystique mu daal di jóge foofu xam le wax ne ki nga xam ne moo di Sa Thiès Reug Reug ak euh, Ama Boy Niang ñoom am nañu li nga xam ne rek moo di avenir ci MMA waaw am Sarr ba tey boo waxee bu waxee rek dama naan connaisseur bi mooy wax ki nga xam ne yàgg na encadré ay athlète ba pare xam na lu bare bare bare bari ci mbir mi kon defe naa bu xalaatee ne ñooñu ëllëg war nañu mën a dominer MMA defe naa ne itam lu jar a bàyyi xel la waaw parce que ñu mu lim ñëpp ay xale la ñoo xam ne macha allah am nañ avenir ci làmb ñu duggee MMA tamit war nañ ca mën a am beneen avenir ndax ku nekk gis na rëg-rëg ak ci taxawee ak doxalin yi nga xam ne actuellement mu ngi d'accord kii nga xam ne moo di Boy Guet Ndar nekkoon nag ancien lutteur moom daal dina ñëw rek ci ambition yi nga xam ne am na ko pour doon rek li nga xam ne moo di promoteur. waaw commencé na ko de dèjà mu ngi tëgg ay lamb fa nga xam ne moom mooy ca Saint-Louis maanaam Ndar mhm. kere jaar na fi waxtaan ak ñun ci Equivox TV defe naa ne loolu nekk na nit ki tamit boo nekkee ci dara daal mhm. ba bàyyi ko ah defe naa ne nga retourné waat. nekk ci daan acteur nekkoon ci acteur di ci yëngatu comme di pratiquer mhm. tey nga bàyyi nekk promoteur defe naa loolu lu rafet la loo lu am la ba xam ne daal carrière promoteur bi nga xam ne entamé na ko moom booy génn daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko réussir en 100 pour cent daal amiin voilà euh, xeex coronavirus fële ca Pikine Ama Baldé def acte boo xam ne acte bu noble la daal di fa distribuer li nga xam ne moo ay masque ak li mel muy lu am solo dem ñu nga foon ah, ñu nga foon vraiment ay gel ay masque ak yu mel ni ki noonu loolu lépp c'était pour lan la pour fexe ba coronavirus bi jéegi fii defe naa loolu tamit defe naa ne geste bu amam solo lu ñu koy saluer moom Ama Baldé loolu mu def noonu ànd ko la nga xam ne nii moom moo di école de lutte Falaye Balde waaw loolu moom lu ama am solo la muy loo xam ne daal ñu ngi koy rafetlu xëy na liñ ci xaw a kii rek mooy ñun ama ma ñu fa woon dèjà gisuñu ko ba nii ñu fay jógee daal gisuñu a dégg daal école la moom dafa def lu rafet. jarul nga cay xaar nit ñi teg ci seen gët. waaw waaw loolu loolu noonu la ko doxal pour nit ñi gis mais dafa def acte bi noonu. bien sûr waaw loolu am na. voilà bu ñu jógee foofu rek ñu daal di dem ci ki nga xam ne moo di Coly Faye moom euh, entre victoire et défaite. bett mu nekk waaw loolu foofu xale la boo xam ne daal mu ngi si làmb ñu am si moom yaakaar lool. Mhm. muy xale boo xam ne defe naa ne ah ku ne gis na fi mu jëm ak fi mu jóge nekk na mbër moo xam ne daal mu ngi jëm ci combat digganteem ak général bu fas mhm. defe naa ne ah combat la boo xam ne xamuñu nu mu ciy duggee bu ci duggee nu mu ciy génne waaye daal mhm. xam naa ne victoire moom dina doon lu ko cay war. dëgg Euh, bu ñu jógee foofu ñu dem seeti rek journal record ñu daal di dikkaat ci nga xam ne moo di Ama Baldé maanaam comme li nga wax léegi presse bi dañ ko doon xaar mais teguñ ko bët. waaw parce moom moo ñu fa woon moog waa école am. Mhm. ci loo xam ne geste bi mu war a mën a def la jàpp ci xeexu corona bi muy geste bi nañ ko déjà mais xëy na presque bu fekkente ne am na luñ ci lu leen ci métti rek mooy Ama mi nga xam ne moom mooy ndey mbil gi moom kenn gisu ko fa mais nag geste bi moom. Mhm. macha allah quoi rafet na geste bi voilà. Mhm, Mhm. Euh, bu ñu ñëwee record fekkaat fi ki nga xam ne rek moo di Boye Guet Ndar moom nag xam na ne kii di référence moo di Aziz Ndiaye. waaw ci wàllum. Euh, en tant que promoteur mhm. am na solo parce que nit ku ne tamit mënu moo ah. lu mën a xew rek am yi maanaam nit ku ne looy def lu mu mën a doon mhm. dina am koo xam ne moom nga cey jël comme référence defe naa ne Aziz Ndiaye bu ko jëlee comme référence ci wàllum promoteur yaakaar naa kon bëgg na def carrière bu sori ñu koy ñaanal yàlla rek la Aziz Ndiaye def ci wàllum promoteur booy gën def lu ko voilà bu jógee foofu ñu dem seeti ki nga xam ne moo di Fallou Ndiaye moom nag fële ca Gambie teg na li nga xam ne rek moo di 1 million 250 2 million muy lu am solo ah loolu defe ne ci lu yokk l'exemple bi lay doon rek mu fas ko yéene jëfe wax Fass nekk ca Gambie le 27 ak ñu mhm. euh, xam ne daal ami mhm. ñu ngi ñaan yàlla dem ceeg jàmm génn ceeg jàmm rek salgar rëg-rëg tamit lañ lay lay defaale foofu ak moo gën mhm. muy loo xam ne lu am am solo la ñu ci ñuy nuyu waa Ndiaye production bi yëpp Fallou Ndiaye ak encadrement ba ak ñëpp ñu ma àndal daan mm-hmm. waaw Babacar fa la xibaar yi jaar Ndar képp waaw sant yàlla rek julli bi waaw ñuy ñaan jàmm Sénégal di ko ñaanal képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre di la nuyu encore fa di nuyu Gomis di nuyu Yagmar mm-hmm. mi nga xam ne nii moom moo nekk ci montage bi ak képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Equivox TV. bien mm. merci beaucoup voilà mbokk téléspectateur Equivox TV fi la ñuy daal di yem yéen rek ci xibaaru lamb ji tey di leen jox dig daje rek ëllëg incha allah jërë ngeen jëf